mbokki Leewtoo ñu ngi leen nuyuwaat baax a baax fi ñu leen daan nuyoo comme niñ ngeen ko xamee rek ma ngi ànd ak yàgg maar ci caméra bi Ndeye Coumba Fall jigéenu jàmbur suñu jigéen ñun ñëpp jigéenu làmb ji lool la wax tey ñu ñëw ci beneen numéro ci làmb ji ñu ñëw fii ci Grand Yoff seet yi koo xam ne dafa bokk ci làmb doon promoteur di xale di doomi champion Yacine ak ki nga xam ne moom mooy Ablaye jóob di magam waaye tam xaritam àndandoom doomu ndeyam ñu gën koo xam ci café Touba mais Yacine ñu ngi lay nuyu baax ba waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ak jàmm. kan mooy Yacine ñu ko bëggoon xam. waaw Yacine benn xale la euh, juddoo Ngoye euh, ak Palmarin di doom ci Ambroise Sarr waaw yàgg bëgg làmb daan bëri ba yàlla def ñu bàyyi làmb bu pare. di tëggay làmb. daan nga bëre. waaw daan nañ bëre mu yàgguñ ci nag. Mm-hmm. dañ ci xaw a foo tuuti rek. <laughs> mbapat wala bëre dóor. waaw mbapat waaw xaw nañ mbapat tuuti. Mm. mais yàgguñ ci nag. nga ne bëre nga mbapat. waaw jaar nañ mbapat def nañ ci benn deux ans trois ans normalement. Mm-hmm. waaw. yan champion nga doon dajal ci mbapat bi. waaw comme ñu fi nekk rek mbëri fi nekk actuellement rek. Mm-hmm. waaw. def nañ ci def nañ ci deux ans trois ans ñu fi nekk rek yi rek xam nga làmbu moom mbapat moom hmm. dafa yaatu da ngeen di ñëw nekk ay cent sant soixante mbër hmm. waaw mais daal xaw nañ ci def benn deux ans mais xuusuñ ci bu baax a baax nag. daan nga jël ay drapeau waaw mais taxu koo bëri nag. Hmm, xaw nga ci ay nag quoi. non mais xaw nañ ci foraatu tuuti mais taxu koo bëri parce que yàgguñ ci. parce que dañoo commencé un an deux ans après ñu gis ne wax nañ mën a def leneen ñu bàyyi ko. ñu jóge ci bëre. ñëw ci tëgg ay làmb euh, nga war a tëgg benn journée bu am solo dimanche lay doon le 22 terrain gi ndax mën nga ñëwal ci làmb jooju. waaw comme ni ko gars yi xamee rek xam nga làmb moom euh, boo ci nekkee nekk promoteur war nga am ay ambition te tey jii nii suñu ambition mooy dem bay organiser événement yu mag moo tax ñu préféré suñu journée 22 bi yóbbu ko terrain gaal gi fas ne def foofu benn événement bu rëy. di ci woo gaay yëpp tamit képp kuy bëggee làmb rek amateur yeeg mbër yeeg ñëpp ñu leen di woo ci le 22 incha allah mu war a nekk xew-xew bu mag journée bu mag aussi ànd ñëpp waa production waa sum production gaay yëpp waaw. mooy sa ñaata édition. mun naa nekk suñu troisième édition. troisième édition troisième édition waaw. Mhm. édition nga def 2 millions. 2 millions 2 millions ah, pour moi. Euh, kon euh, miin nga terrain bi bu baax baax. ah non mën nañ ko ci seetaan mais li mooy suñ première sortie ci terrain yi mais suñu grand comme waa suñu production yàgg nañ organiser ñu dem di di ci jàpp donc mën nañ ko ci seetaan daal mais pour organisation moom lii mooy suñu premier dem foofu. lamb hmm. ji ko ko tuddee. Euh, Diène Marcel Diagne mu nekk PDG sama groupe nekk borom Diamniadio Like City borom Djilass ak borom Mermoz hmm. waaw. lan moo waral loolu borom Djilass ak borom Mermoz. waaw xam nga Jean Marcel moom ku ko xamul tamit war nga ko dégg à travers son projet Diamniadio Life City mu nekk tamit benn jeune boo xamante ne mu ngi œuvrer pour le développement du Sénégal moo tax ñu jël bés bi jagleel ko ko mu nekk en plus suñu waay suñu xarit la suñu waay la yàgg na jàpp si suñuy événement donc moo tax bés bi nii nar nekk bés bu mag ñu jagleel ñu jagleel ko ko ci kàttanu Yàlla. Hmm. kon keroog mën nañoo xaar ay eh, mbiru cosaan comme ni ko Ablaye Diop sa mag di defee wala nan maanaam da ngay solu seru rabar bi am yooyu xam ne da nga koy wis ci géew géeg ñoomin seen ak yenn mel waaw non dara du loo xalaat rek ak loo xalaatu sax dina am incha allah parce que bés ko laaj waaw loo xalaat ak loo xalaat dina fa am en fait événement lay doon quoi le 22 moom du doon làmb kese mais événement boo xam ne ñëpp ciy gis seen bopp lay doon. kan moo koy woy. Euh, Mbayang Loum. ku koy tëgg. Maodo Faye. Hmm. muy lu doon choc. Ah, xam nga loolu lu yomb. Hmm. du yomb de Mbayang ak Maodo terrain gaal gi. Hmm. le 22. Cardi production drapeau Diène Marcel Diagne ànd ak ñoom Café Touba ñoom sumu production du yomb. ana coach. coach mu ngi fi mu ngi si jàmm. dina ñëw. incha allah. bu ñu ne coach. gars yi dinañ naan kan la. jarul laajte. kenn rek moo fi entraîneur national bi nga xamee ne kenn du ko werante muy Amoura suñu papa jooju ñu ngi koy nuyu baax di ko ñaanal jàmm Ablaye Diop sarak di tëgg. mu mel ni saa sa saa booy tëgg yow dañuy yaakaar ne moom moo tëgg ci bëtu ñu bëri yow boo amee bës moom Yacine day ñëw taxaw mu mel ni bësam la. avant tout d'abord maa ngi leen di nuyu bu baax yéen waa Leewtoo di rafetlu luy aussi parce que yombut au lieu ñu def déplacement fekk si leen ngeen fekk suñu ba Grand Yoff mu doon lu ñu rafetlu lool. Eh, bésu Yacine dinaa ci sawar a wax eh, du question Abdoulaye Diop rek a fi ne. du moo fi gën a mën cër la rek mu doon lu yàgg suñu diggante aussi mu doon lu ma marqué ba bésam xaaruma ci convocation xaaruma ci mu ma nii appel nii rien ma ciy takk rip am na ñeneen ñu gën a placé wu pour lii doomu mbër la donc dara mënu koo réer ci làmb mais cër la rek yàlla moo mun a boole làmb ja ni mu ko waxee pour man làmb sum production lay organiser ci mais pas làmb kàddu lépp luñ ci war luñ taxawaay may xam-xam et tout disponibilité dañ koy def defuñ ko ngir làmb cardi production dañ koy def ngir céeréer gi ndax bu doon am-am rek mënoon na viser feneen fu dul ci làmb ji mais de cee bokk deret bi la moo ko ci sonal mais du xaalis bi ku mun a osé début saison nga débloqué deux millions cinq cent te deux millions cinq cent mise bi la mais li ci tegu ëpp na loolu frais d'organisation bi et tout il te faut minimum cinq millions pour événement bi mu a jàll kon doonatul utum xaalis. te Ngaada dina ñëw. dara du manqué. lu dul loolu sax ni la ko waxee rek innovation la risque bu mu jël rek pour événement boobu moo tax dañ ci dañ ci waslu àq bu baax a baax a baax a baax ñi ci jàpp ñoo bari kii du question invitation moo ko fi indi daf ci bokk ñooy guddi di bëccëg. muy Café Touba tur biñ ko mu gën a xamee donc ñu ngi invité ñëpp boo gisee ñu delluwaat ko bu doon wutum xaalis Adrien Senghor moo gën a mooy ay dépense kon ñu yemale ko fi te Adrien Senghor mise am mënul weesu million mais boo gisee ñu yóbbu ko fale pour biisaat événement yi doon am début saison bi di invité ñëpp ku ne foo munta toll mënuñoo dem ku ne mu ñu fekk la këram moo waral lii ñu bëgg nag ku ne gis da nga organiser sa benn doomu ndey sol tengaade nga sol sóoru rabal ngeen di sottante ay gàllaaj ci seen bopp yi kenn ku ne di sangat sa moroom ndax loolu mën nañ koo xaar fii ci terrain gaal gi incha allahu rabi noonu lay demee bu soobee yàlla parce que comme defar rek a ñu indi jëmm ji lépp lu mu yëkkati jëmale ko ci man damay taxaw xaar ko parce que xam naa ne liy yóbbu dëkk bi liy yóbbu làmb ji kanam lay Adama Diouf dina koo koy jiitu ca làmb ja waaw kumulay ka a fogole sereer andoona ka ta fuuda Leewtoo TV a fuuda euh, andoona te refi promoteur ta ref a Hyacinthe euh, Sarr fo andoona te refi Ablaye Diop a refu maagum eh, wa Leewtoo TV keke ka ref ka rafetlu oxuma parce que ka fog no ke manquer ina e in no ne ka i ndëmbax ndëmbaxeegu rek mbaka neen i koy bo njeg keke de mbago déplacer oox it a cereer ne kaaga ka i rafetlu ox no avant tout o fog séeréer fop koy oxu na ñoowa njom in way cooɗa rendez-vous terrain gaal gi le i mbakiran ngir o waaɗan ka jeg ka i mbug na ɓaato lalit ma no cosaan séeréer cooɗa rendez-vous fop ngidma fop ngeɗanan a ɗatale te xotna fakasta lenga fa ño soɓ teen inchallahu rabi ngidma fop njega yakar no fop cooɗa fop rendez-vous xene tena bes fe te ref Marcel refe o kiino qas kam ceereer seereer o a reɗanga waɗan xaalis i mba ndef meen mbida ministre mbida débusté wala des choses comme ça nda ke te représenter ano ceereer ne ten waralu te sargalel a koom donc seereer fop a mbara mbaago nga teen a qoox den i ngidma fop sant fop machallah jërëjëf a jega solo Café euh, euh, na naan lu rëy mbuum deeca li bokk daal day nuroo yow danga bokk ci li nga xam ne moom mooy <laughs> sum production sax laay wax ah parce que lépp benn la ah. léegi yow lan nga mën a indi ay leeral ci li nga xam ne wax nañu ko ñoom promoteurs yi. waaw baax na bala ma wax dara damay nuyu ñëpp di nuyu waa kii Cardi Production euh, gaayam yëpp maa ngi di nuyu ay ñoom jileen aadama Diouf. ñi bokk jotaay bi yëpp maa ngi di nuyu tout ñi nga xam ne bokk nañ ci làmb yi tamit <clears throat> di nuyu Ablaye bi toog nga xamante ni tey nekk na grand boo xam ne un bon exemple lay joxe yaa ngi dégg royukaay la quoi waaw <clears throat> bon làmb nag tamit euh, man li mu ci wax moom bëriwul quoi que dañ ko tuddee koo xamante ni tamit suñu grand la euh, suñu xarit la ñu koy wax euh, Diène Marcel Diagne parce que Marcel boo tuddee rek sa xel dem ci jëm ñaajo nekk koo xamante tamit day jàppale président Macky la ci lépp ñu koy wow ci bis bi bëgg nañ tey mu teew Grand Yoff di si jiital doomu ndeyam Ablaye Faye nga xam ne xaritam la fu mu nekk mu ci ginnaaw ay ñoom Tafa jóob Marcel maa ngi lay wax ne la Pape sooy ñëw fii ci arme bi na nga indiwaale parce que Pape Diouf foo jëm nga fa te dañ la koy ñaan nga indiwaale ñu ko fii parce que Marcel tey Grand Yoff bëri na ay séeréer te tamit moom séeréer la te Grand Yoff bëri na ay séeréer làmbu séeréer lañ ko tuddee arène Adrien Senghor terrain gaal gi ñi ñi ñi ñëw Adrien Senghor ñooy ñëw terrain gaal gi ñëpp ay séeréer lañ ñu si ëpp te yow séeréer nga bëgg nañ nga teew ci bis boobu noonu nga ñëw siggil ñu xam nga ay ñoom Tafa Diop Ablaye Faye Chérif maa ngi koy nuyu bu baax bëgg naa tamit mu teew ci bis bi suñu gaayaan bu baax la moom lépp lu nekk rek ci di wax di woo Catalina Catalina waa Catalina bi nga xamante ni moom moo ngi ba Poroxaan instant yii xam naa dinañ fa dem seeti ji ko waxtaan ak moom. waaw lu rek laa ci amul lu ci di nuyu nag ab laay bi toog nag xam nga laay moom xam nga moom borom baal ko dëgg yàlla moom waaw lu rek la ci wax ko waaw. Ndeye Comba. waaw xanaa laaj nag bi parce que ku ne làmb ne arbitre te activité yu euh, arbitre yi tamit nañu dañuy nekk euh, si si mouvement de grève yéen loolu est-ce que ànd ngeen si lu ñuy lu ñuy lu arbitre yi di moom xam ne moom la ñuy revendiquer. loolu moom xanaa ñu bàyyi grève rek. <laughs> ah Ablaye Diop grève bu arbitre parce que ku wax arbitre day kumba li nga wax dafa leer ku wax lamb wax arbitre il faut ñu arbitre ko ci am arbitre yoo xam ne tàmm nañ leen miin nañ leen te dañoo ne ci grève. Eh, foofu dinaa ci sawar wax lool parce que moom la ñuy vivre actuellement nii eh, motif bi am na ci quelque part foo xamante ne ànd naa ci ak ñoom mais nag lépp lu ma ciy lu mooy moment biñ ko teg. moment bi ñu ko teg parce que avant tout ngaañ bi ci ñun promoteurs yi laa ko situé mun naa joxe exemple tout récemment ci làmb dimanche bi keroog samedi lañ nekk au courant du ñu am arbitre te moment boobu li war ci événement bi yëpp dépensé nañ ko xëy na booy rafet njorti ne am na loo ci mun a récupérer waat mise bi la mun a doon mais li nga def sur le terrain côté publicité et tout ça mënatuñ ko woon jot kon ngaañ bi ci ñun la njëkkee côté boobu doon na loo xamante ne rafetlu ma ko ba bu doon conseil boo xamante ne mun naa ko ci joxe par exemple bu ñu bàyyi woon ba làmb ji teg période du vacances yi mun nañ jokkoo ak ñi ñu war a jokkool installé li ñu war a installé boobu ñun engagement bu ñu ciy jël dinañ xam ne lii moo ñuy xaar mais financer sur le terrain ba pare au dernier moment ñu ne la làmb ji mënatul am ndax amuñu arbitre côté boobu rek laa ci rafetlu wut. mais benn am na ci benn koo xamante ne jàngat naa ko ci li ñuy réclamer. muy côté assurance bi foofu ànd naa ci ak ñoom parce que jël nañ benn risque boo xamante ne nekk sur le terrain di dem ak ko ñëw kër kër affaire yooyu sans assurance ak parcours bu ñuy def ak risque yi ñuy jël sur le terrain côté boobu nangu naa sax président seet ni ñu mun a waxtaan. mais beneen côté bi kon nangu. non nono côté payoor bi. côté payoor bi ànd ma ci parce que li ma ciy dute mooy li ma ci xalaat bu gàtt may. mooy à bu ñu demee ba accordé ko xaalis boobu du jógee CNG ci promoteur yi lay wàccaat parce que le pôle lu ñu leen di jox ñu koy xeet ci promoteur bi la jógee kon si jamais ñu accordé loolu aussi ci ñun lay ñëwaat rek mais quant nag ñu sofel leen yoon bi ñu am assurance entre temps parce que accident fu ne lay jógee lépp lu ci arrivé nit au moins mu am lu leen ciy xaar foofu am benn soutien bu leen xaar au niveau du CNG. yaa ngi wax léegi si say kàddu nga ne euh, d'accord ñoom nu grève période bii nii xam nga même enseignant sax suñu grève duñu xam école tëj ñu grève si biir euh, année scolaire la ñuy grève ñoom tamit seen grève nii lañ ko mun defee si biir euh, saison bi la ñuy mun a grève yaa ngi wax aussi d'accord aussi période boobu noonu ngay wax mais période boobu noonu looloo ñu maa lu ñuy xeex loo tax tey CNG wóolu leen samedi pour déglu leen est-ce que tey pour yow CNG am na droit déglu leen waaw wala de te tey ji fekkee na leen suspendre wala nu dàkku leen dàkku leen yéen fas yéen yéen yéen mi xam ne intégrité simple lan ngeen fas yéenee def. non côté boobu li ma la ci waxoon rek comme grève bi nee nga enseignants yi dañuy grève durant année scolaire bi mais dañuy décréter avant au moins dinañ ne tel jour bu li réglé wul dañuy grève mais ñun ñu xewle woon dimanche samedi lañ nekk au courant ci loolu donc solution amatu fa. solution amatu fa catégoriquement dañuy perte énorme d'argent sax mooy li ma la wax rek un million bi mun na ñib si mais li ci topp du ñëw côté boobu maa ngi ciy jaajëfal CNG bi nit ñu ci jàppale ba événement bi jàll mais côté bi ma la wax munoon tudd promoteur te tuddoo arbitre te ñoom arbitre ñëpp ñun ay frère lañ am na détails yu bëri yoo xamante daf ñuy arrivé sur le terrain ñu leen ñu ko sans autant CNG nekk ci au courant kon ñu ngi leen ciy gërëm côté boobu mais jógee fii comme exemple bi ñu joxee dem ba Bargny di arbitrer ñëw taxawaat ci territoire bi pour ñibbi sa kër foofu risque bu nee ngi ci risque bu nee ngi ci foofu moom nangu naa ñu seet nu ñu leen ci taxawee ci côté assurance bi là je suis d'accord avec eux yaakaar naa question bi foofu la woon rapport ak samedi ak dimanche convocation samedi ne CNG ñoom arbitre yooyu Sitor ak Mar leen di entendre tey ji su fekkee tey nañ leen suspendre wala tey ñu dàqu leen yéen la ngeen fas yéene def yéen mi nga xam ne yéen promoteurs yi non côté boobu moom xanaa comme ñëwagut dañuy xaar ba mu yegg si bu fekkee li ma la wax nii côté assurance bi foofu lañ leen dàqee foofu man dema ci ànd ak ñoom loolu wax naa la ko foofu dinañ def le tout seet nu ñu leen mun a tenir diggante ak CNG médiation bi ñu ci mun a def ba juboo amaat ci jàmm amaat ci. parce que ni ma la ko waxee rek Sitor moomu nga Sitor ak Malick am na yu bëri yoo xamante ne bu ñu réeree ci wàllum organisation du ñu mun a demaat ba CNG côté boobu ñoom la ñuy gis. xëy na sax am nañ ci njàngat boo xamante ne séparation bi am seen diggante te la ñuy doog a parce que ñoom lépp lu ñu doon wax ci ñoom côté arbitre bi CNG la ñuy wax kon lu ñu réeroon foofu ci ñoom la ñuy dem. am na détails yu bëri yoo xamante ne dañu ci doon jàppale te duñu egg CNG donc bu ñu demee bi atteindre niveau boobu dinañ xam exactement lan moo waree sanction bi wala des choses comme ça dinañ xam nag ban tànk lañ ciy taxawee incha allahu rabi. Euh, Yacine euh, lan ngay tàggatoo. waaw xanaa di leen sant di leen gërëm rek waaw di leen jaajëfal bu baax de ñaan ñaanal yàlla Leewtoo dem ba nekk ay télé télé parce que seen liggéey rafet na. ak seen disponibilité tamit di leen sant di leen gërëm rek di waat amateurs yi le 22 incha allah di woo ñëpp ñëw teewee ko mu war a nekk fête bu rëy di woo ñoom jileen ñoom laay fay di waat président Diène Marcel Diagne ci bés bi xam ne bés bi bésam la waaw di leen santaat di leen gërëm bu baax rek. Mm-hmm. Euh, loolu leer na yàgg maar yaa ci dégg mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV loolu mooy lamb ji war am le 22 waaye nag dégg ngeen bu baax Ablaye Diop la mu wax ci ci arbitre yi euh, Malamine Fall euh, duñu ko fatte ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko woo ci bés bi comme ni nga xam ne noon ngeen ko waxee euh, daanuy jaajëfal bu baax Café Touba waaye Ndey Kumba ñoo ngi lay wax jokka njal ah comme ni ko séeréer di waxee den wax ne ba beneen incha allah jër ngeen jëf